gàtt rek lay doon. moom kat fii mu ne nii wax bu gàtt rek lay doon. di nuyu ñi ci des te tudduma leen. di nuyu nag ñi ci des te tudd leen. Ablaye mbay wax na ko léegi. nee Ablaye mbay mii wax na ko léegi. Amadou dafa ñëw këram. Amadou nag fii mu ñëw këram la. Euh, miin na fi lool. lool miin na fii mil ëtt bi bu baax. Euh, politique boolewu ko kër gi. politique nag boolewu ko nag ak kër gi. miinantee miinante woon ak suñu waa yëpp. ni mu miine fii nag noonu la ñu miinante woon moom mii ak suñu waa kër yëpp. ci turu xalifa bi ak ay rakam. ne ci turu xalifa bi moom Seydi Aboubacar. ak ay rakam. moom ak ay rakam. ak njabootu maam Cheikh ak njabootu maam Cheikh Seydi Hadj Malick yëpp. ñu ngi lay wax bismillah. ñu ngi lay wax fii ci sa kër bismillah. ñëw nga ñëw nga fii nag ci sa kër. di ñaan yàlla. di ñaan nag yàlla. tànk yi nga jóge. tànk yi nga xam ni yow moom nga jóge. ba ak si fii. ba yàlla na ko yàlla barkeel. yàlla na ko yàlla barkeel. yàlla taxawu la. yàlla taxawu la. yàlla jàppale la. ñi ngi sant bokk yi nga ñi ngi sant nag bokk yi nga xam ni ñoom nga àndal. Eh, borom paaka. nee borom paaka. ko jiitu ci kenn du ko jiitu ci mbaram. dañu doon dañ leen doon dalal rek. dañ leen doon dalal rek. waaye borom paaka bi. waaye borom paaka bi. borom mbar mi. borom mbar mi. ma nga ca kaw. ma ca kaw. fi jógee. ween fi jógee. fa la jëm. fa jëm. waxam. waxam. moo compté. moo compté. jëfam. jëfam. moo ñun xamuñu lu ñuy wax. ñun xamuñu lu ñuy wax. maam Sidi Hadj Malick radiyallahu anhu. nee sunu maam ju baax Cheikh Sidi Hadj Malick radiyallahu anhu. moo wax ni. moom moo wax ni. wala yukathir. wala yukathir. indahu. indahu. kalaama. kalaama. walaw yakunu. walaw yakunu. baasitan. saafitan. baasitan. baasitan. kalaama. kalaama. foo warta waxee. yow daal foo warta waxee. buñ la fa joxee nga wax. buñ la fa joxee nga wax. boo dee borom xel. boo dee borom xel. waxal tuuti. waxal tuuti. te noppi te noppi. kon. kon. te yéen tubaab te yéen tubaab yi. yéenay wax ni. yéenay wax ni. chaque parole. chaque parole. a des retentissements. a des retentissements. mais chaque silence. waaye chaque silence. aussi aussi. xaj paate. xaj paate. Diop Diop. di sunu lépp. di sunu lépp. xaj daaw góor. xaj daaw góor mii toog di jottali. tabaarakallahu tabaarakallahu. monsieur le PM moom daal léegi kilifa gi daal fa tabaarakallahu ne agsi nga sa kër. na nga xam ni daal fii nga agsi yow sa kër la. Eh, ñu ngi lay jox ubbil néegu xol. ne fii mu ne nag ñu ngi lay ubbil néegu xol. ak lépp rek. ak lépp rek. loo xam ni. loo xam ni nag. borom kër. borom kër. bu ñëwee. bu ñëwee. soxla na ko ci këram. soxla na ko ci këram. jox nañ la ko jox nañ la ko. tabaarakallah tabaarakallah. yàlla na yàlla barkeel. yàlla na yàlla barkeel. ñu ngi ziyaar nag dellu di ko waxaat di ziyaar ñi nga xam ne ñoom nga àndal ñoom ñëpp muy góor muy jigéen muy mag muy naw di leen ndokkeel nag ci tamxarit gi ashora bii ñu génn léegi di amin di ñaan yàlla yal nañ ko yàgg fekke sunu xalifa bi nag ak i rakkam yàlla dolli leen wér guddal seen fan ñu yàgg a nekk fii ci sunu kanam ñu tàllal loxo yi jàng fatiha salaatul fatihi ñu dawale ko ñu dawale ko ba ca borom mbar ma kay kay amiin barakallah